libre de ses mouvements même bu fekkee ne xëy na euh, barricade nañ ko mënul dem mais inquiété wuñ ko ci yenn yenn yenn yenn position yi nga xam ne jël na ko. des fois doo comprendre le fonctionnement de l' état. à de mes propos nee naa la que fi ñuy xaar Macky Sall. Mhm. mooy restaurer. l' état de droit l' état de la confiance par rapport a nos institutions. mais ana tey ndey ñuy accepter day am une une juridiction une justice à deux vitesses. y des actes qui ont été commis jugés. Mm mais il faut que justice se fasse. qu'est-ce qu'on attend pour effectivement les mais prendre les responsabilités qu'il faut pour régler loolu. mais à quel prix parce que gis nañu li mu juróom. le problème c'est pas parce que après mu daw on ne peut pas faire de l'omelette sans casser des œufs mais dans une république bés bu ñu gëmatul bés bu ñu amatul confiance ci institution yi y a un problème mu daw xam nga lu tax tey dix mille bii. mu doon dix mille francs mhm. parce que ñun ñëpp dañu gëm ne mooy dix mille francs la mooy valeur bi. dañ ci d' accord. dañ ci d' mhm. bés bu ñu ci <laughs> kon bés bu ñu toogee banaliser la justice ay mesures am ministre bi ne oui on attendait que euh, le décret xaw ma l' ordonnance sorte xaw ma l' mhm. arrêté génn arrêté bi génne bon léegi on a la ñuy xaar li ñu war a def ñu def ko un point surtout pour jàll ci autre chose xoolal confusion bi tey. mais les deux fois Sonko Sonko warul dem warul dem élection. Mhm. wala war na dem élection. koo nekk la la lanterne et on dépasse. mais waratuñu nekk fii di de de mel ni comme ci situation bu ñu nekkul. là je ne suis pas d'accord. mais le président et les institutions à les responsabilités là-dessus. mais su dañoo jàng ci li weesu parce que boo seetloo la première fois qu'il a été convoqué ñu wane image yi ñu ne Ousmane Sonko arrêté nañ ko ci la affaire yi mars 2021 14 euh, wax bu mujj bi mooy keroog bi ñu ko jugé ci la affaire yi commencé boobu tamit on parle d'une vingtaine de morts en tout pour tout nee nañu depuis 2021 avec cette affaire Sonko près de 50 personnes ñàkk nañ seen bakkan ci Sénégal. léegi nag moralité on a une justice on accepte d'avoir ëllëg nga toog am ku ñëw di la torxal euh, di di jàkkaarloo ak yow di di joxatante ak yow wala boobu parce que tu as des illuminés tu vas être pire que euh, Videla euh, d'Argentine et et Yaya Jammeh soo toogee bon. loolu nga gis kenn du la critiquer ah mais. cin bu naree neex su baaxee xeeñ kat man li ma gisagum dara si réew ma. toogaguloo sax nga mën nekk nekk ci yu mel yi non yaa a un problème. Hmm? mais man loolu laa gëm. état lu mu war a doxalee. par rapport ak Sonko mais par rapport ak son organisation politique aussi. gis nga dañ ko war a transcender ci kaw institution la man Modou Awa soo mosee dégg sumay discours partout je lu ñu mën a nekk. ci suba ngoon nañu respecter l'état de droit nañu conforter nos institutions les détournements dañ ci war a taxaw kay wax loolu. Mhm. gëmul ne Massamba ma Mademba gis nga illégitimité. ku def lu war a tax ñu war la dénoncer dañu war a dénoncer moo tax may wax ne ko la reddition des comptes dafa doon lu war a basique. parce que dans un pays comment on peut comprendre que les hommes d'affaires di bëgg a dee ci xiif marak leen am ay ay gars yoo xam ne par le hasard de passe-passe mais war a nekk ci benn hyper teranga boo xam ne ne il peuvent pas justifier fu ñu jëlee xaalis boobu ils doivent rendre des comptes kon li may wax. c'est le respect de nos institutions et de l'état de droit en général. D'où quel que soit l'individu, il faut qu'il y ait une justice pour tout le monde, mais pas une justice sélective.